abu mbir daa xew comme que buzz yu net lañ wax jarul ñuy seddal affaire dañ ko daal di kiiwal mhm. et ba tey si làmb lañ lañ la ñuy daal dugg ah, dañoo gis benn benn mbër bu takk jabar mhm. Ada Fass takkoon jabar gars yi naan Ada takk naan takkul takk na mhm. Ada Fass dem na voyage yi Ada Fass ñëwaat takkaat ki nga xamante ne moom mooy ñaareel jabar lan nga mën a wax noonu en tant que euh, euh, euh, reporter en tant que nitu làmb lan nga mën a analyser si si si Ada nekk ndaw nekk si yoon takkaat jabar. waaw loolu ma ñu mën a analyser yomb na ilmu. Hmm. maanaam Arafat ci plan sport. Hmm. pour mu doon professionnel. dëgg la. warul néew mu takk deuxième femme war takk deuxième femme parce que mooy xool hygiène de vie mu bëggee dundee. Hmm. ak pour mu stable et mun na bàyyi ba ci kanam. yaa ngi comprendre ci kanam. dëgg la. Euh, yaa ngi comprendre Arafat xale la. Arafat ba may vingt cinq ans ci la yem. sama première émission Ada mu ngi fi. yàggul ndeysaan yàggul yàggul booy bu ndaw. ma ñëw di mais staff bi diri dirigé wu ko. beneen bi ci côté encadrement kilifaam xamuñu ni kilifaam mais góobuñu est-ce ñu ngi diisoo ak booy bi ci ay di partager ak booy bi. Ada Fass na tey lamb du millier yaa ngi xaw ma nag peut-être waaw ah, bul comprendre sax loo xam sax après booy bi nan moo ko arrivé quoi su ko neexee nag mën na takki àdduna ay jabar yoonu kenn newu ci. mais est-ce que est-ce que. ndaw nga nekk mbër. Ada fas tey jii ko ko xam nekk na yaakaaru yaakaaru fas tey jii nga gisoon Fass tey jii koo wax mu ne Ada Fass koo wax mu ne xale bi koo wax mu ne doomu fas bi ah. tey ji nga gis Ada Fass mu nekk ndaw nga gis ni ku bay bañ la ko sax mbër boo boo boo boo amee combat sax da ngay da da da ngay daw. Mm. xam boo amee combat sax da daw comme lu comme lu Bécaye wax. munoo daan daaneel. nga gis ni nga yoon ñaari jeeg. nga nekk xale boo xamante ni war nga nekk si làmb ab avenir u làmb nga takk deuxième femme côté maanaam carrière am est-ce que du ko yàqal carrière am. ah waaw mun na paralyser am mun na bañ a paralyser parce que bu fekkee mu ngi def lu lu lu war ci yaramam amul problème mais takk deuxième femme bi dafa teel du yoon. ci sportif quoi. yow da nga jàpp ni si staff mi maanaam ñoo ko waxul dëgg. non staff bi baaxul staff baaxul Arafas su ma bëggoon moo tax loo heure jabar na dawal feeg 2 ans ci kanam sax wala 3 ans wala 4 ans wala 5 ans ci kanam. ba tollu fee Arafas xale la day am doole. lamb da koo soxla booy yi jënd booy yi nga booy yi nga xamante ñooy topp ci ginnaaw di jël ay junni ku jënd ay t-shirt Arafas Arafas joxul respect ay supporters am. billaay walaay jox leen cër Arafas joxul cër mbooloo mi koy topp. xaw ma dafa fonne nag dafay wóol na gàllaajam torop mais bis bu ko booyam yi bàyyi mu làmb bàyyi ko promoteur yi toppee ñu ko dara lu succès bi mu am ak bës bi mais succès dañ koy mën a gérer. ak mbooloo bi mbooloo mi. booy bi Arafaas dafa am problème mu téye succès. dëgg la am na problème mu téye téye xale nga làmb soxla na àdduna di la yuuxu. teg nga benn jabar coow yi bari ci. waaw nit da ngay daw coow coow jugul kenn. làmmiñ baaxut. bu rayut cemal. Mm. dañ koy catu cat ba ba way duloo ko. fii gis fi ci làmb. xoolal ñoom Gaye ñoo ko ëppoon ñoo ko ba nii may wax yow nii yaa ngi dégg Modou Lo c'est la même chose mu te ñàkkuñu ko am nañ ko na booy nekk ci lamb ñoo ko gën a cher cachet Siteu Siteu gi daal moo gën a cher téeméeri Arafas dégg nga Siteu takk deuxième femme plan de carrière dafa baax ci ci mbër yaa ngi dégg plan bi ngay def mooy sportif da ngay ñaan yàlla doon professionnel doon pro doon daanaan. say bu sa xel bi yëpp ko def ci làmb ji nii nii rëg rëg fa rawee mbër yëpp rëg kuy takk mbër Sénégal fii rëg la moo la raw ci plan sport mu neex la mun a xar leen rëg rëg moo leen raw ci plan sport raw ci yi nga xamante ci côté extérieur bi États-Unis yi ah? xam nañu rëg rëg rëg rëg maanaam ne ko tout koo xamante ne daan non non ah benn leader rek international la adduna bi yëpp fi ñoo ko vu adduna bi yëpp ko parce que rek dafa ñëw gérer plan de carrière ci sport gérer sport def ni sportif di def ko ci yoon mbër noonu ngay rek yabul ay ñoom seex yabul booy am yooyu de booy yooyu noonu bu ñëw ko xëy fi ngay dugg fa lay dugg loolu mooy mbër benn xel du xel Ada maa ngi koy ñaanal nag seen bi yàlla si yàlla ak salaam yàlla may ko créer bu gudd mais sama xel ñaaw na ci moom trop. mais nga euh, euh, mhm. mu takkee première femme ba sàkkantuma ak deuxième femme mu mel ni dafa mel ni mhm. ba mu takkee deuxième femme ba gars waxee man dama cee d'accord li tax ma d'accord ba mu takkee première femme dama cee d'accord waaw ñu ma loolu war tax yóbbal leen non non sportif jabar yàqu sport. benn jabar. waaw yàqu sportif. ñaar jabar yàqu hmm. jabar yàqu ko. même boo amee ba ñaar ba ñett. ñaari jabar sa yàqul la. mais dafa ah, dafa yow d'accord nga suñu def. dafa teel teel bi moo laa d'accord waaw dafa teel waroon na xaar ci kanam tuuti parce que sportif bu am jabar mu la gën a mu la gën a nekk dans la norme. yaa ngi comprendre moom day mën a tënku. parce que sëy dafa am ay réalité yu ci am sa jabar heure yi ngeen tëdd heure ngay toog ci kër gi heure yi ngay yi ngay génn ak yorul doon mais sportif bu amee jabar maanaam de mun a cage wu léegi day yaram bi day am toppatoo. mais ñaar bari na dara. waaw xaaral ma ñëw si xale. day am toppatoo tey bu amee jabar tey tey tey sportif bu amee jabar tey toppatoo bi muy am hygiène de vie bi day normal dañ nga toppatoo di nga ñëw ñu toggal la nga lekk lekk bu baax. dañu la defar fóotal la say yére toppatoo carrément lépp boo ñëwee lépp loo xamante ni jigéen ñu defal la ko léegi sa entraînement day gën a jaar yoon parce que am nga ku la gérer am nga ku la toppatoo yaa ngi comprendre mais nag quand nga nekk xale di pré même ba xamante sa sportif même xale ñii suñu genre gi nii rek ñun yee jeunes yoo xamante ñun fii kenn am fi ay 35 ans yi ñun ay 31 ans fi am 32 ans ñun rek ñun ñaari jabar dafa ëpp si ñun dafa ëpp si ñun ñaari jabar day day indil amul problème amul ngaaj bi ci nekk pression la lay indil te sportif bu amee pression du liggéey sëy dafa am dañuy xam lu ci ne sëy sa jour lay neex. Hmm. imagine sa ñaari nga am moom problème ah ama yow nga bu ko boolee cage wu ne am nga esprit tranquille pour entraînement pour am doole pour ba ñëwee ci làmb ji wane sa bopp. Hmm. Ada ah, Fass gëm naa ne boo amaatee combat bu daa bu daanoo ko yàlla mais. am na combat moog Zoss. moog Zoss. Zoss dafa ak ay ci com genre combat yi laajal guy gi bañ naan yaa ko mën mais ñu gis ni euh, bu bu bu loolu weesoo ñu gis ni li nga xamante ni moom mooy Ada ba tey damay ñëw. Mhm. mais gis nañ ni li nga xamante ni ñoom ñooy ay euh, ay supporteurs am. Mhm. maanaam gis nañ ñuy génn di sànni ay xeer di lakk tiset yi. ñii ñoo ngi naan jabat ji la ñii ñoo ngi jënd ay càq-càq jox ko li nga xamante moom mooy booy parcelles yi. waaw cooloo am na ci nag booy euh, maa ngi dégg ñu naan affaire jabaru Arafaas bi la ak lii ñi ñaan noonu dafa jënd ay ceg-ceg jox ko booy parcelles yi non Arafaas est-ce jënd ay ceg di jox booy parcelle bàyyi waa ko ñoom est-ce def loolu ah dégg naa loolu def de parce que ñu bëri ñoo ngi mm-hmm. yaakaar ni. Mm-hmm. booy euh, lim def pour. Mm-hmm. jabar ji nga xamante ne moom laa dafa takk. mais nekkul loolu carrément parce que bi ma xoolee euh, euh, li nga xamante ne moom mooy d'après information yi. dama dégg ne dafa jënd ay càq-càq. daal di koy jox li nga xamante ne moom mooy beneen naan mooy dafa jënd ay càq-càq daal koy joxe. mais nekkul. Euh, jabar ji nga xamante ne moom moom la takk. Euh, moo tax booy di daal di sànnee mm-hmm. xeer. booy loolu booy loolu intéressé wu leen ay jabaru adavance booy loolu intéressé booy bu moytu booy bàyyi ko de waaw na gën a communiquer ak supporter yi xaw ma nag ana Lamine LP quoi LP lu mu nekkee daanaan xam nga xaw ma daal mais affaire bi daal Elmo. Hmm. adavance xale la waaw. donc benn conseil boo xamante ne doon nga ko conseil en tan que euh, euh, yow lan nga koy conseil benn conseil. man su ma conseil à la face li ma conseil mooy que comme dem na ba dugg ci deuxième femme ah na mën a gën a gérer vie rek xam nga gën a gérer gën a wàcc tamit communiquer ak supporter am yi waxtaan ak ñoom ci xel mu dal bañ a yem ak ñoom incomparable bañ a benn làmb du millier sa duma ko gars yi ñu ko fi doon indi ñëpp anañu kenn diggante ci làmb am ñoon dund millier ci làmb bu ñëwee jaay perek anañu ñu may wax sax ñu bari xam nañ leen seen tur ah diw ak diw diw ak diw diw ak diw ana ñu léegi. waaw ndeysaan. ah làmb waaw daanaan yooyu ah ay saalum saalum làmb du affaire de milier du affaire de gënsa du affaire de non yi booy yee weñaaru yuuxu déedéet booy si leen gën a pare si te leen ëpp fit xaama làmb dafa am ñaari mbër yoo xamante ne bu fekkoo fit rek fit fit fit. barke Seydina Muhammad ilmu dafa am ñaari mbër yoo xamante ni ci làmb voye bu dee fit rek fit fit rek marle Siteu Zarko ñetti mbër yi ji nga di wax bu guerre bu bu amoon États-Unis <laughs> na ñëpp gaa yi toog ñoom moom mu dem mais dama la marle Siteu sarko te ñoo gën a yaru ci mbër yi moom marle moo gën na noppi ci Marie Marley mais kuy takk kuy góor yàlla ëppoo ko fi moom Marley parce que dama koo xam dañoo vie waaw dañoo dund xam naa ko lu mu capable bu baax barke Serigne Touba mun na wàcc xeex arrêt stade bi yëpp Marley mais moo ëpp taalibe ci la ci ci làmb moo gën a yaru ci làmb ñëwul indi affaire de millier du dund ay non dund millier sax ba affaire Marley lay jaay. mu bi ci biir géew la koy dund ak yow abi ñu dagg jën yi jàkkaarloo ak yow man nag keroog ba Arafas Arafas di bëreeg Zarko dama leen Arafas di muy jaay Zarko moo ko ëppale aller retour ñaa ma ne abul foo teg loolu ma leen Araf Zarko ko gën a nekk undu pare mais làmb ja moo fa am leen jaay leen réewande indi affaire de waga duma daan leen loolu mooy yëfu kii Siteu boo duggee ci géew gi xam ne mooy mbayaar dëgg waaw nga xam ne moom waaw moom du du fool foolu wut lam lay wax da koy wax bu ko neexoon nag bu ñëwee moo gën a populaire ci mbëri Siteu waaw bu ko neexoon mu dund affaire de milieu comme booy yi defu ko taalibe la day téye booy den yedd booy ñu def lu yoon sax mu dem ne booy defal léegi léegi léegi lii dama bu duggaale Siteu di ko fekk fa li fa booy di topp booy bay toog yëpp su booy bu ne lay jox dépense nga yóbbu sa kër yaa ngi comprendre si tam avance bi la da bi mu jël nii sax xool li mu ci def jënd na booy ay dóoru booy dem ne ngeen joobi loolu lay gëm la booy loolu mooy kii mais du lii quoi du millier waaw lamb dafa du millier